soxna Ngoné ngoom ci wàllu actualité loolu doon li fi gën a fës. Abdoulaye Der ñu lay gërëm di la sant danañ dikkaat ak yow ci kanam tuuti fii ak booba ñu àddu ci mbirum étudiants yi nga xamante ni euh, dañu wàññiku ci wàllu bët ñoom nag jàpp nañu nee na blanche bi waral coow li ci wàllu njàng mi ñoom ñanga ca depuis euh, daaw 2011 ba tey euh, ñuy xaar kon ku leen orienté dara mu ci ba waral altine ji ñu amaloon toogaay donc ñaxtu ca buntu building administratif Maymouna Ndiaye Aliou mbay ñoo leen fa fekk. silmaxa yi am seen bac te nekkuñu ci benn daara fanaan nañu seen guddi bu njëkk fële ca building bu ndakaaru jamono ji mere nañu loolu nguur gi gannaaw ay dige yu mu amaloon te dara amagu ci liñ doon sàkku ci gouvernement bi depuis boobu ba léegi euh, amuñu ci suñu njort ñu ngi ci yuuxu di ci topp jotuñu ci ba gouvernement bi fi nekkoon jóge fi ba bii ñëw fi terewul it ñu topp ci di dugg de ministère en ministère déposer suñuy lettre wax ci presse bi ñu dégg ñu mais boobu ba léegi kenn réagirul. ndongo yi tàmbali woon seen ñaxtu yi ci weeru septembre 2011 ba léegi ñu ngi xaar ci suñu dara. waaw suñuy revendication mu ngi doon suñu mbirum jàng après bac bi parce que après bac amul université benn ci Sénégal bu ñu mën a accueillir. année yële passé suñu grand yi bu ñu amaan bac euh, état bi da leen daan yóbbu à l'étranger pour ñu mën a jàng. mais depuis 2008 loolu dafa dakk taxamuñu lu ko waral. tamit doomu aadama li nga xam ne waroon nañu mooy dem nañ ministre de l'éducation nationale kenn faale wuñu ñu bin demaat fa kenn faale wuñu ñu ne nan dem kon ba fii bu ñu toog fii sitting boobu ba tey gisuñu fi kenn. ci dër bii nga nu fekke fekke woonu mat laa fekke woonu sër fekke woonu dara te teewul leen tëdd ba bër set ndéem nag ñun bokkunu ci réew mi wala boog dañu jàpp ne bu sa bët wàññeekoo yàgg mala yéen a yem dinañ leen won ne sori nan boor boobu li nu jànguloo ba may nu bac su fekkee ne ñoom gëmulu ni ñun li nu am may nu ko dan koo ñaq ñun dinañ leen wan ni dan koo ñàq ci fukk ak benn ci ay ndongo juróom-ñett am nañu seen bac ci atum 2011 wante ba léegi amuñu benn daara bu kawe bu ñu mën a yeggalee seen jàng loolu lépp ngir lenn rekk dañoo ame laago yàlla muur seeni gët ñoom nag ci diggé woon daal euh, dëgëral euh, daal di jàll ci beneen vitesse euh, dañu leen nag mujj teg loxo ñoom étudiants yooyu wàññi ci wàllu bët ndax dañoo àggoon ca boori pale foofa nag lañu leen jàppee daal ba yóbbu leen kon ca commissariat central bésub te àdduna bi jagleel ko kon wàllug njaboot ñu taxaw ci rôle bi nga xamante ni jigéen ñi am nañu ko jëmale ci seen i gone ñu bari nag nangu lu ni mel taxaw rek ngir toppatoo kon njaboot gi ñeneen jàpp ni euh, xëy na jamono métti ba waral xëy na nu ñu leen daan bàyyee xel duñu ko mën ak wàllug euh, liggéey bi euh, loola nag di gën a soriantoo la waajur yi jigéen yi ak seeni doom Aminata Mbaare Sow Gervais Yao ñaari soxna yi ay waajur lañu waaye bokkuñu la ñoo dund Agnès dëkk ca Grand Yoff ak ñaari doomam bés bu yàlla sàkk du def dara lu dul toppatoo njabootam ak këram. suba teel damay jóg defar leen yóbbu leen école su ma ñëwee jublu sama ménage dem marché ñëw togg sama añ man seen papa nekku fi tout le temps ak ñëw man maa fi nekk maay gérer ndax seen papa marin la day dem di ñëw xam nga tey suñu amul éducation de base dañu ne yaay ji la. ute lool ak soxna si di jaay cuuraay ci marché Grand Yoff liggéeyam mayu ko mu yendu bës bu nekk ak njabootam. yar bi nag ñu ngi waa école ñoom ñoo ñu gën di dimbali ndax bu ñu xëyee huit ba ay deux heures la ñuy ñëwaat ci kër gi. samedi dimanche bu ñu jàngiwul dañ leen di jox ñu wan ne leen da ngeen di bale ménage seen yëre bu tilimee ñu fóot xam nooy waxe ci nit ñi. dund gu metti waral coppite am ci doxalinu waajur yi. dëkk bi dafa metti jafe-jafe yi dafa bari. suñu bàyyee yëpp a góor ñi même bu ñu jàngee même bu ñu ndékkee sax problème lay doon il faut dañuy jàpp yaay ji day jàpp paay bi jàpp suñu dajee mën a dimbali xale bi ndax mu am avantage ëllëg. jëf yooyu nag ute lool ak ni ñoom doon yare seeni doom ngir ñu am jikko yu baax. ñu taxaw ci jàngoroy biir buy daw nañu ko daan faje ñu gis ni amoon na lu ci sooke ba daal ñu bëgg ci indi kon lu bees loola nag mi ngi aju ci ay euh, sachet yoo xamante ne yu nañu na muy bindoo ngir gone yi ñu duppee ko esero waaye it ay euh, comprimé zinc ngir feebaru biir buy daw kon euh, gën leen a sori mu yokk seen ndëgër laay mbir mi nag docteur yi gis ni jot nañu taxaw ci ndax bés bu ne ñaar fukki tout tànk ñàkk ci seen bakkan Nafissatou Silla Madani Marega jàngoroy biir bu daw dina faat lu toll ci million ak xaaj ci ay xale ci dëkk yi néew doole yi ci àdduna bi mu doon lu metti ci askan wi rawatina tamit ci Sénégal. waaw fii ci Sénégal biñ ko xaymaa mën nañu wax ne bés bu jot dina am lu tolloog ñaar fukki xale yoo xam ne eggaguñu juróomi at yoo xam ne yi dañuy faatu te biir bu daw moo leen di faat. lu si ëpp su feebar bi di biir bu daw la dina bàyyi ay tolof-tolof ci xale yi ngir faj bi gën a gaaw nag alliance zinc ak SRO la ñuy digle jamono ji xale yi euh, ndox mi ñuy wax euh, njarum xettali loolu moom kër docteur yi rek la ko mun a utijee muy sungu soo xam ne da koy jaxase si liitaru ndox di ko jox xale bu mu naan boo demee kër docteur dina am doom bu ñu koy jox foofu bu ñu tuddee zinc zinc boobu nag nekk loo xam ne dina tax ba xale bi biiram ba taraayu biir bu daw bi dina wàññeeku waaye dina tax ba xale bi du gën a biir bi du gaaw a dawaat. pourtant nag ay pexe yu simple am na ngir fagaru. feebar bi nag niñ koy fagaroo maanaam mën nañ wax daal mooy cet cet ci lépp nag cet ci kër gi fexe ba cabinet ya fañ koy sotti bañ a jege ak dundukaay yi fi nit ñi di ne fexe itamit ba nga xam ne xale bi saa yu lekk dinañ raxas loxoom ba mu set ak saabu. ki koy may mu lekk itam dinay raxas loxo ba mu setax ak saabu. programme traitement biir bu daw bi nag baax na ngir xettali xale yu bare moo tax nag waa ministère de la santé dogu si taxawal ay partenariat ak gouvernement Canada. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Soxna Ngone. bisu tey ku ni tàggat yaram dellu si ci bokkaande ko. waaw xam ni tey moom euh, sport bi moom euh, du ci terrain yi donte yëf ya stade Demba Diop la doon xewe waaye nag euh, foofu ci François Bokandé la ko fa réew Sénégal doon sargal ci hommage boo xam ni état wu Sénégal moom moo ko fa organisé. Euh, président Macky Sall euh, jiite woon ko euh, nit ña bare woon fa lool lool lool ca stade ba bari woon fa woon tamit ay personnalité yu bare yu ñëw ngir sargal Jules François Bocandé mi génn àdduna Adi Atala sax mi ngi koy wax sànq si jokkoo bi ngeen amoon ak moom ndaxte kii di Pierre Atepa Goudiaby moom ca discours Euh, yëkkati fa ay kaddu euh, di ñaan daal euh, ñi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ci rébellion bu Casamance rek ñu xool ci Jules François Bocandé ak réew Sénégal ni mu doone benn rek ngir ñu wàccee ngànnaay yi foofu ca Casamance kon Bocandé réew Sénégal sargalati nañu ko te yëf yi tamit jeexagul ndaxte koor bi dina dem ëllëg ca Ziguinchor suba nag suba teel lay doon Ziguinchor euh, foofu nag tamit ñoom tamit pare nañ ngir accueillir euh, Jules François Bocandé euh, depuis mortelam ndaxte ca sëkk yu ba lañ ko nar denc foofu lañ koy jébalee boromam moom Fatou Ndoye nag ak caméramanam di Jibilaay Diop amal nañu fa doxantu euh, foofu nag ñoom tamit nee nañu pare nañ lépp ak waa Casa Sport tamit euh, pare nañu euh, bés suba bi dañuy teew reportage Mame Fatou Ndoye ak Djibilay Diop. gannaaw jaloore yu rëy yi mu def ci Sénégal Jules François Bocandé nar tëdd fii ci bàmmeel bi fii ci cimetière mixte bu ba waaye nag du sori ay waajuram ak ay maamam boo seetloo tamit ña ngay raxas di defar ñooñu nag mooy agent municipaux yi ndax dañoo bëgg suba gan yi duñu gis lenn lu dul lu taaru mu mel ni daal fii ci Casamance ak Ziguinchor dara du fi ndaw ngir gunge Jules François Bocandé ci euh, demeure am bu mujj Ziguinchor nag di euh, dëkk boo xamante ni moom daf ko mës a bëgg def ko ci xolam ndax fii la amee lépp fii la dellu siwaat ci lépp umpul kenn ni Jules François Bocandé Jules François Bocandé national la euh, maanaam Sénégal lépp a ko bokk mais itamit euh, fii la fekkee baax. voilà dégg ngeen ko moom Noah Cissé nekk président Casa Sport ni Jules François Bocandé. Euh, nitu Sénégal la nitu Casamance la kon ñoom ña ngi koy xaarandi ëllëg foofu ca Ziguinchor Ziguinchor sax ëllëg euh, foofu euh, jàng du fa am ndaxte ndongo yépp Euh, may nañ leen ba sub suba yi ngir rek ñu dem sargal Jules François Bocandé kon ngoone euh, dañuy yem fii waaye yëf yi jeexagul ndaxte euh, gis ngeen image yi Mame Fatou Ndoye yónnee ñu dinañ ci dolliwaat yeneen yoo xam ne dinañ leen ko tegal guddi rek ay reportage yoo xam ne ni Ziguinchor lañ ko defee ak suñuy envoyés spéciaux Mame Fatou Ndoye Djibi Laye jóg mu télévision Futur Média kon euh, Cheikh Tidiane du bàyyi dara euh, ngir euh, daal di sargal ca na mu waree eh, kii di Jules François Bocandé dañu yegsi rek ci wàllu jàngat bi jagleel ko nag wàllu kon taxi ñu tegoon ci appel téléphonique yi appel entrant yooyu indi woon fi coow loolu dañu ko daan nañu ko dindi nag fukki fan nak juróom ci weeru mai bi lay tàmbale loola gannaaw ay négociation yu dox diggante gouvernement bi ak opérateur de téléphonie yi négociation yooyu nag ab yegsi ci benn euh, protocole bu fekkee nag danañu ko dindi am na it fu nguur gi di tibbee xaalis ngir nag bañ a yëkk ñàkk googu euh, Fatou kon Conté ci leeral la bés ni ki ci tey sur taxe ci appel entrant yi fii ci Sénégal jeex na fi mu di ndogal boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci conseil des ministres bu Abdoul Mbaye ki di Elimane Diouldine ni amele woon benn waxtaan ci digganteem moom ak de téléphonie mobile yi ci 5 bi ñu weesu mu di loo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur de téléphonie mobile yi rafetul nañ ko loolu ñoom nag ne ñoom ñooy waa Sonatel jàpp nañu ne appel entrant yi dafa indi woon wàññitiku bëri ci mois yi nga xam ne appliqué woon nañ ko fii ci Sénégal dafa taxoon seen trafic wàññeeku woon loolu ci woote gi ci dem gi fii ci Sénégal mu di wàññeeku tuuti wàññeeku boo xam ne boo seetee dafa amoon benn impact si revenu yi nga xam ne ñoom lañu ñu amoon fii ci Sénatel mu di perte yoo xam ne bu ñu xooloon ba ci biir ñi ngi ko estimé woon ci quinze virgule six milliards de francs CFA ci chiffre d'affaires ak sept de francs CFA ci seen charge yi nga xam ne moom la ñu ameeloon ba pare compétitivité bi ñu amoon ci niveau international dafa wàññeeku woon loolu lépp nag appel entrant yi moo ko indi woon teg ci nag fraude gi bari woon lool boo seetloo lii di appel entrant yi fii ci Sénégal quatre mois yi ngi fi taxawaloon rek ñi nga xam ne ñoom ñuy waa ARTP dañoo tegoon benn surtaxe boo xam ne cent quarante et un franc lañ ko tegoon ci appel internationaux yi tegoon ci benn code part boo xam ne ARTP amoon na ko ci mu di quarante neuf franc lañ amoon ci li nga xam ne moom mooy appel yi jóge ci téléphone yi mobile yi ak soixante quinze franc mooy appel yi nga xam ne moom moo jóge woon ci téléphone fixe yi mu boo xam ne soixante deux cent ci appel entrant internationaux yi ñoom ñi waa ARTP ñi ko doon fënq ci kaw nit ñi wante nag bu ñu fàtte ni bu ñu annuler surtaxe boobu nag du tax waa Sonatel dinañu jàppale nguur gi pour mu mun a taxawalaatal équilibré li nga xam ne moom mooy budget daanaka ci seen bénéfice danañ ci génne 10 milliards de francs CFA en 2012 ngir jàppale nguur gi tegati ci aussi ci impôt relevé sur les sociétés de 25 à 30 pour cent en 2013 pour mën a jàppale nguur gi mu retrouver budget loolu yëpp ci terme accord yi la bokk. Sonatel nag nee na dana def kéemtalaay kàttanam li nga xam ne moom mooy njëg gi ñu daan woote mu wàññeeku bu baax a baax a baax daanaka sax ba ñu jugee ci signature protocole boobu ñoom ñi waa Sonatel dañoo woo ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal pour wax leen bis ni ci tey appel entrants internationaux yi wàññi nañ ko fii ci dindi nañ ko fii ci Sénégal kon nag jamono ji ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jaay détail dañoo war a mën a wàññi seen appel yii di ñëw fii ci Sénégal Fatou Bintou Konté ñu koy gërëm ci euh, leeral yooyu dalal ci suñu gan Aminata Thiam Dramé soxna si ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay fay. Euh, nga bokkoon direction des opérateurs ak euh, relations internationales fële nga xamante ni kon moo di Sonatel appel entrant yi moom la ñuy waxtaanee tey jii yàgg ngeen ko xeex kon tey jii mu mel ni am ngeen ci ndam fi ñu toll nii nu ngeen ko jàngatee décision bi. waaw maa ngi lay gërëm Ngoné ci loolu donc exactement depuis le 5 mai en fait gouvernement bi ak acteur euh, euh, opérateur yëpp euh, discuter ba tomber d'accord finalement signer benn protocole boo xamante ni le 10 mai conseil des ministres entériné na ko donc e-, effectivement à partir de tey le entrée en vigueur donc mun nañu wax ni surtaxe bi jóge na ci Sénégal donc. opérateurs yi amatuñu problème boobu. amatu leen problème sur taxe mais lan lay euh, juraat ndax la ngeen fi doon wax bari na 15 milliards de pertes leen indi euh, wala coow lee bari woon noonu tey jii dindi nañ ko fii lan la mën a apporter waat euh, kër ga apporter ko. lan li mu war a njëkk a mën a apporter tey et tey la door mooy suñu consommateurs yi déjà au niveau du Sénégal. parce que ñooñu à cause de surtaxe bis dañu obligé yokk seen tarif yi ñuy fay pour woote sur l'international ñooñu sachant que suñuy client lañu on a réussi aujourd'hui donc à enlever cette surtaxe léegi ñi nekk sénégalais yi nekk à l'étranger ñooñu ñoo des donc ñi nga xam te ni opérateurs yi la ñu sëkkal dinañ ko sentir automatiquement parce que mm, bind nañu opérateurs yi wax leen dinañ ko mais malheureusement comme ni ñu ko gisee ci reportage bi dafa am ay vendeurs au détail ñoo xamante ni dinañ def suñu lay kattan pour ñu wàññi. tarif yi nu mu gën a gaawee. ci ñi nga xamante ni wàññiku bi c'est déjà effectif foofu naka la toll wàññiku bi. wàññeeku bi fi mu nekk avant li ñu mën a wax mooy ni que seen tarif bi dafa nekkoon ba 255 francs léegi dellu nañ tarif yi ñu nekkoon avant muy 175 francs. Mhm. parce que moom lañ nekkoon mais puisque bi ñu defee surtaxe bi opérateur yi ñu sekkal yëpp dañ leen bindoon ni leen suñu tarif dafa yokku. mooy li ñuy wax réciprocité ñoom ñëpp dañu yokkoon seen tarif yi donc ñun suñu charge yi dafa yokk ba un moment onité était obligé te xamuñu woon surtaxe bi ñaata temps lay durer. tey ji askan wi itam di xaar yokkute boobu ni nga ko waxee mu gën a law ci ñoom parce que euh, doon ngeen xeex bari na ñu leen ci doon jàppale mais euh, ñoom tam dañu bëgg xëy na en retour ñu yëg ko bu baax ndax bari na tamit loo xamante ne ñu ngi koy jàmbat jëmale ci kër gi wàllu téléphone yeeg yooyu bu ñu sañoon mu gën a woyof ci ñoom ba ñu yëg ko euh, ni ngeen yëgee ne xëy na tey ji am ngeen ndam ñoom it ñu yëg ni ndam li yéen koy partagé ak ñoom incha allahu rabil alamin yëg parce que ñun li ñu suñu intérêt fi mu nekk mooy tou le temps ku bëgg téléphoné mën a téléphoné ci njëg yomb mm-hmm. xoolee ni mu ak ni muy passé chaque fois téléphone bi day gën a yomb et je pense que surtaxe bi dañ na dinañ am plus facilité wu wàññi leen wàññi leen njëkk yi et puis defar leen yeneen yoo xam te dina tax ñu mën a gën a bëri ay jumtukaay yu wootee Euh, mais surtaxe bi bi muy dañ euh, soxna Aminata dañul noonu rek dafa am loo xamante ni ci wàllu bénéfice dañ daan gis tam chaque année ngeen daan wax ay euh, bénéfice yoo xamante ni daa ngeen ci am loolu am nga loo xamante ni d'accord ngeen xëy na jox ko nguur gi pour mu mën leen a dindil lii mhm. d'accord nañu jox ko nguur gi loolu je pense que buñ ko waxoon dès le début ñu defal leen ko c'est-à-dire ñëw surtaxe mooy da ngeen xaalis damay jël lu ma neex or tey bu ñu toogee ni dañoo soxla xaalis ñu toog diisoo xool lan la ñuy soxla ak lan la opérateur yi man ñu defal leen ko Mm, mais ci wàll woowu coow li ak ni mu baree woon li mu indi est-ce que ci euh, bi ngeen di diisoo ak nguur gi xool ngeen ko ba xëy na xeeti jëf yi du fi amaat comme ni ñu ko defee xëy euh, changer lu leen neex est-ce que verrouillé ngeen affaire bi euh, wala naka la demee seen diggante nguur gi carrément. jéem nañu discuter ak ñoom ba trouver accord li ñu leen wax dañuy soxla xaalis ñun. li ñu leen doon fay impôt sur le bénéfice discuté na ak ñoom ba d'accord ni dañu leen yokk 30 pour cent li ñuy ñaan yàlla mooy tant que ñoom ñoo ngi fi taxes yi ñu leen di fay yépp Euh, mu doy leen par contre li fi xewoon ñu yàlla mu xew xewati fi et loolu malheureusement gis nañ ni vivre nañ ko mënuñu. ci mais est-ce que ngeen euh, ci lu leer que ni façon yi dootul amati. Euh, mais di wax wax la loolay wax ji. <laughs> ñu lay gërëm. di la sant soxna Aminata Thiam Dramé mm-hmm. la ñu àndaloon ndax waxtu wi dab nañ incha allah 20h l'incontournable. Mm-hmm. Alifa Diakhaté dina ci àndaat ak yow mu bokkoon ci direction des opérateurs et des relations internationales euh, fële kon ca Sonatel ñu koy gërëm di ko sant doon waxtaanee lu jëm ci appel entrant yi mbokk yi yéen it ñu leen di jaajëfal ndax 19h ba léegi ñoo àndoon gërëm waa régie bi di leen jox dox daje incha allah suba beneen li ci penc mi jërë ngeen jëf.